Sunugal 24 mbégte la ñuy am ci topp gi ngeen ñi topp tànneef gi ak kóolute gi di leen nuyu bu baax a baax ci biir invité de la rédaction tey dalal nañ Serigne Mbacké Sylla di secretaire général bu mouvement Jamihatul Iskan moom la ñu dalal tey fas yéene waxtaan ak moom ci ay ponk yoo xam ne lépp lépp tolluwaayu réew mi la waaye balaa ñuy xuus ci li waral tey jotaay bi dañ koy bàyyi kàddu gi mu nuyoo ñu ñuy seetaan ci biir Sunugal 24 Serigne Mbacké ñu di la bàyyi ak ami internet Sunugal 24. asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu waa sunu gaal 24 ñu ngi leen di nuyu waa di nuyu euh, ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ci jaajëf di am mbégte bu baax di dalal la fi tey ci biir suñu gaal 24 ci ay ponk yoo xam ne moom lañu fa fas yéene waxtaane ginnaaw boo fi teewalee mouvement Jamihatul Ishan comme yaa nekk secrétaire bi euh, mouvement boobu naka la tëddee ak lan moo waral ngeen euh, daal di. tëral mouvement boobu. ok jërëjëf soxna si mouvement Jamiatul Ihsan li ko indi euh, day baatu arab muy al ihsan al ihsan moom mooy euh, rafetal te boo xoolee comme ay doomi soxna noo ko mbooloo daat koy xalaat def ko depuis 2016 la ñu ko créé muy ay cheikh yoo xam ne nii ay cheikh yi Serigne Touba la ñetti téeméeri cheikh yi Serigne Touba seexal Euh, muy cent 313 euh, kër gu ne nag euh, ñu dem ci xalifa ba waxtaan ak yow en tant que ñun ñi nga xam ne seenu njaboot lan bokk ñenn ci ñun di ay doom ñenn ñi di ay sët dem ci seeni wajur ak xalifa ka ci kër ga tàggu ko laaj ko ndigal ba mu jox nu ndigal jamono yooyu sax Cheikh Sidil Muxtaar mi ngi dund moom demoon nañ ca moom ba mu jox nu ci ndigal dem ci sëñ Ahmadul Muxtaar dem ci Cheikh Bass porte parole dem ci tous les ñi nga xam ne nooy xalifa yi eh, Cheikh yi Serigne Touba yi eh, bi nu joxee ndigal nag ñu daal di taxawal daal di xalaat mouvement bi muy jamihatul ihsan al ihsan mooy rafetal te ci loolu nag ci lan ma defee secrétaire général eh, loolu li ko waral li ko tax a jóg nag mooy association bu ànd ci lépp lu yàqu rek ñoom ñu jëm koo defar lépp lu mu dégg muy loo xam ne lu safaanoog réew mi la ak lu safaanoog diine l'islam ñun xool naka lañ koy jubbantee ba loolu daal tegu ci yoon d'accord ba tey ci euh, tur woowu la ñuy la ñuy desandi yaa ngi wax léegi que li tax ngeen samp ko mooy lépp loo xam ne lu yàqu ci réew mi la ngeen mën ko dal di jubbantiwaat ban année ngeen ko sos ak activité yi ndaka ngeen ko tàmbalee ba fii ngeen tollu jamono ji may wax ak yow waaw activité yi bi ñu ko tàmbalee depuis 2016 ñun actualité bu mës a am rek euh, loo xam ne nii dafa concerner réew mi wala dafa concerner diine jug nañ taxaw wax ci euh, ku ci mel ne président bi muy sëñ Modou Habib Diouf bu yàggul ci wax waxi salafis yooyu nga xam ne noo nekkoon Touba ban ban ban ban ban am ci ñoo xam ne nii doon jàmbarloog ñoom sëñ Modou Habib Diouf moom waxoon na ci génn ci ay kàddoom wax luy dalal xelu nit ñi ak luy dellowaat nit ñi ba ñëpp kenn ku ci nekk rek nekk ci la nga gëm yaakaar ko comme nag ñun ak eh, njabootu sëñ Tuubaa lan bokk di taalibi sëñ Tuubaa waaye bokk ci seex sëñ Tuubaa yi ñu itam lépp luy defar rek ñun ni ngi ca mouvement bi euh, ndaka ngeen di liggéeyee liggéey bi waaw mouvement bi naka la ñuy liggéeyee liggéey bi mooy ñun euh, dañoo am comité boo xam ne dañ ko taxawal kenn ku ci nekk ak lan la chargé mhm. muy président vice président secretaire général muy man mi ak ak ak ak porte parole mhm. lépp loo xam ne nii maanaam gis nañ ne euh, njariñu réew mi la moo xam ba ci politique comme coow li nga xam ne mi ngi am mhm. te nu jub ay élection en tant que ay chef religieux waaye ay jeunes yoo xam ne nii war na noo mën a takk seen digg en tant que ay citoyen Eh, gis ci réew mi loo xam ne ni war nañ koo mën a wax euh, nit ñi dégg ko ci jëfe ko mu jariñ leen ñun ki ko war a dox muy man mu secrétaire général ñu yabal ma ma dox ko président bi it lépp loo xamante ni moom la war a dox moom itam ñu yabal ko mu dem dox ko waaye lépp rek concerné réew mi su ma déggee say wax da ngeen di yëngu ci wàllum politique waaw politique moom mouvement bi sax politique taxu ko woon a jóg mhm. euh, li ko taxoon a jóg mooy euh, maanaam rafetal ci li jëm ci wàllu diine waaye comme mouvement bi dem na ba toll foo xam ne euh, jéggi na dayo boo xoolee 14 régions yi ak 45 départements yëpp fenn fu ci nekk rek am nañ fa ay représentant boo xoolee euh, Touba nga xam ne fa lañ fekk baax euh, quartier bi gën a mag ci Touba muy Daaru Marnaan samp nañ fa lu tolloog cinq comités yoo xam ne ay ay ay ñenn ci seex yaa fa nekk waaye ñenn ci seenu njaboot ak ñenn ci mbokk talibé yi nga xam ne na nga fa nekk di di def ay social di defal nit ñi ay formation yoo xam ne day day tax nu mën a am métier ba mën di liggéey di di di di dunde seenu ñaq ba duñ tàllal loxo kenn loolu bokk na ci eh, mouvement bi li nga xam ne taxawal na ko boo demee Daaru Xuddoos nga xam ne mooy deuxième ville bi ma la wax nga xam ne Daaru Maraan moo ëpp ci quartier Touba waaye Daaru Xuddoos ma topp Daaru Xuddoos googu bu yàggul taxawal nañ fa benn eh, vingt cinq comité yoo xam ne it woote nan foofu def fa ay social dimbale ndaw ñi ak xale yi yi nga xamante ni maanaam ay formation ba ci wàllu ñëw yi sax euh, téyeer ak yëpp nga xam ne Touba euh, la fa am lan xam ne moom moo fa am muy téyeer euh, ak ak commerce ñun itam nu am fa yeneen xalaat yoo xam ne am nañ ko fa ngir gën a yaatal dëkk ba xale yi nga xam ne daawuñ xëy ñu ci baree baree bare tey ñu ngi seen métier ñu leen jàppale di leen jox ay financement ñuy liggéey di fay ca loolu mouvement Jamihatoul Ihsan moo ko taxawee ci biir au niveau du Touba. d' accord Jamihatoul Ihsan. Euh, yaa ngi koy wax léegi ak rafetal moo ko tax a jóg mais euh, li nga xam ne moom laa jàpp ne ak waroo la ci biir mu di politique bi nga xam ne euh, tàbbi ngeen ci politique bi. te politique amaana dafa am nu ñu koy nu ñu koy tëralee ak ay sartam est-ce que ñaar yooyu nga xam ne moom ngeen bëgg a boolee lu méngoo la. waaw loolu mën naa méngoo ndax xam nga politique. ñun niñ koy defee ak ñi ko yeneen gars yi di defee dafa bokkul ñun dañ koy def ci defeenu lislaam ndax politique bu sellee baax politique du wax wax ju bon du wax du wax xaste du wax wax joo xamante ni da ngay génn di taal ay pono wala di di di di di di di def ay euh, révolution yoo xam ne nii ndax loolu li muy indi mooy taal dëkk mm-hmm. taal réew te am réew moom daanaka bu amee taali pono xeex xaste maanaam loolu moom day naxas xandang maanaam li nga xam ne mooy koom-koomu réew mi moo tax ñun suñ politique bi ñuy def biñ ko tàmbalee ci depuis 2016 euh, président bii fii nekk tey ñëw na 2017 Touba euh, recevoir woon mouvement bi mu intéressé ko woon lool bi mu bi mu recevoir nu toog ak moom waxtaan ak moom weccoog moom ay xalaat wax ko mouvement bi ñu ci bokk ñëpp ci seexi sëñ Tuubaa moom itam mouvement bi intéressé ko lool ba mu doxale woon suñu diggante ak moom muy ministre Omar Youm mi nga xam ne mooy nekkoon chef de cabinet président Macky Sall nga xam ne booba ñu itam waxoon nañ ko ay programme yuy wane ne Touba kat nii lay doxee soo jaaree ci yoon wi lay jaarale nga xam ne ñun depuis ñu taxawal suñu mouvement ba léegi ci yoon wi lañ jaare ba tuubaa ñu ci baree baree baree tey ci ay jeunes ci ay góor ak ay jigéen nee nañ ci suñu ginnaaw daanaka sunu wooteen wuy sunu fu nu joxañ nu nu ànd kook ñun lu nu lu nu bëgg nu ànd kook ñun loolu li nu ko may muy politique bu sell la waaye politique sociale la waaye politique boo xam ne dañu ànd di di di di di di waxante dëgg waaye di di def jikko joo xam ne mooy jikkoy makaarimi axlaax muy jikko ju rafet ñun noonu loolu ñun ci politique boobu lañ jël moom la ci loolu lañ waroon a ànd ak moom waaye nag comme dem nañ moom ba ca digg ba nu gis ne moom ni muy doxee xëy na bokk tëg ñun ni ñuy doxee ñenn ci waa mouvement bi taxaw ne léegi nag na leen taxaw xoolaat ci yan euh, yan yan anam lañuy lañuy lañuy la ñuy doxee ak ci yan anam lañuy xaar ba gisaat koo xam ne méngoo na noonu moom nu ñuy doxee nu ànd ak moom doxee ak moom. lan moo tax bokk leen doxalin euh, dafa am lu mu leen diggoon defu ko wala dafa am lu leen waxante woon defu ko wala ci ban fànn ngeen jàppee ne daal wax dëgg yàlla li ngeen doon xaar ci moom amu leen ko. waaw xam nga comme mooy li ma rek euh, moom daf nu recevoir woon bi mu recevoir mouvement bi intéressé ko trop bi mu ko intéressé mu wax na ne dana ànd ak ñun ñun itam nu waxtaan ak waa comité bi yëpp jigéen ñi ak góor ñi ba ñëpp pare pour ànd ak ñoom ku ne xam ne ne it ñun suñ dee politique ci Touba xam nga ne Touba gañe ko yombul ndax mooy deuxième ville du Sénégal te boo ko bëggee gañe il faut nga am ay moyens te it ñun def nañ tout pour ànd ak moom mais li ci ëpp ci ñi nga xam ne nii noo nooy nooy nooy mouvement bi gis nañ ne li mu waxoon defu ko euh, ñun itam ci boobu leen toog daal di croiser suñu balaa daal di téye suñuy loxo ñun itam jamono jooju lan la leen digoon lu mu leen waxoon loo xam ne defu ko. waaw daf noo diggoon ne nu dina nu recevoir maanaam. Mhm. ba pare dina indi ay moyens jox nu ko. Mhm. Euh, nu jàppale ko. booba nag euh, defu ko ñu itam bi mu ko deful ñu itam daal di xam ne defu ko nu toogee ñu itam comme suñ mouvement moom rafetal rek moo ko tax a jóg. te gis nañ ne moom digoon na euh, dëkk ba ne tey jii ñun dina wëlbatikuwaat ànd ak ñun ci suñu programme bi nu amoon muy formation yi ñuy defal jigéen ñi ak projet yi nga xam ne jigéen ñi am nañ ko. ci ay machine yu ñaw yoo xam ne dañ leen di ubbil ay centre ba ubbi nañ benn centre sax boo xam ne nii dañuy jël ay xale di leen jàngal formation métier ñaw ku ci mën a ñaw mouvement bi ci bopp moo lay financé nga dem di liggéey di fay loolu yëpp ci projet yooyu la ginnaaw moom yooyu waxoon nañ ko te def ko bi mu ko ñu itam ñu ci ëpp ne comme président bi waxul li kat nan delluwaat ci la nekkoon di continuer def suñu activité bopp ba nii nii lépp lu ñu def financement ci suñu bopp la. d' accord bu ñu nee politique ci réewum Sénégal fii euh, des fois dañu naan que politique dafa salte yaa ngi koy wax léegi que déjà dañ lay dig dara ba pare te amaana la ñu soxla bu jàllee dootuñu la faale euh, ci beneen ponk la ñuy dem mais ba tey dañuy des ci li nga xam ne moom moo di politique bi actuellement comme séparé woo ngeen euh, donc yaakaar naa ne comme élection locale yaa ngi jub seen mouvement ba léegi mi ngi taxaw war ngeen mën a choisiraat beneen candidat boo xam ne moom ngeen di jiital topp ci ginnaawam actuellement moo nekk seen choix. waaw xam nga ñun moom ba depuis boobu ba léegi dañoo toog daal di ànd ak dal nekk ci suñu activité di def lañuy def di toog nag di xaar candidat bi nga xam ne moo gën ci ñun waaye gën ci réew mi it ndax ñun intere réew mi la ñu xool. Mm-hmm. suñu xoolee ne kii kat moo gën ci intérêt réew mi mouvement Jamhilou Assane pare na pour ànd ak moom. d'accord actuellement amagu leen benn cible gisagoo leen aussi benn candidat. dox ak ay tànkam ñëw ci yéen pour solliciter leen. waaw bari na lool bari na ñu ñuy contacter. Mhm. waaw bari na ñoo xam ne nii soxla nañu euh, ci opposition bi ak ci euh, parti pouvoir. Mhm. moo xam ñenn ci ministres yi la ba ci directeur généraux yi ñu ci bari ñu ngi waxtaan ak ñun waaye xëy na ba léegi nii dégg gun kàddu gun mën a convaincre ban mën a wëlbatikuwaat ànd ak yow. jëmmal la ci Touba waaye jëmmal la ci 45 départ ak ak 45. Euh, euh, mbokk yi ñuy teewlu ci biir Sunugal 24 yéen ñi nga xam ne yéen a ñu dab ci biir émission bi maa ngi dalal Serigne Mbacké Sylla di secrétaire général bu mouvement Jamihatul Ihsan euh, bu ñu wéyalee waxtaan wi ba tey ci politique la ñuy des naka nga jàngatee politique gu Sénégal actuellement élection locale yi ñuy waajal ak yëngu-yëngu yi nga xam ne tàmbalee nañu ko cee nemmeeku. waaw maanaam locale yi moom ñun liñ ci wax rek. Euh, maanaam du du du du du du li nga xam ne moom lañ gis muy euh, képp koo xam ne nii daa war a dem candidat nekk candidat ci benn gox mu wóor na la diw mii su demee euh, nekk candidat mën naa gañe gox boobu mu jaral la éliminer ko walla mu jaral la yàqal ko bu du dem loolu moom du politique bu baax ñu nag dañuy lancer appel ci président bi en tant que waa mouvement Jamiat al Ihsan nga xam ne ci rafetal rek lañuy ñuy dox na bàyyi ñëpp ku war a dem dem ku war a gañe gañe te it euh, ndaw ñi nga xamante ni jël nañ seen yitte jëpp muy muy muy muy lenn muy taalipano muy violence bi nga xam ne moom laan xam li fi amoon ci sunu ginnaaw bu yàggul loolu moom maa ngi lancé appel ñun ñi nga xam ne tey jiite nañ leen te sañ a wax ak ñoom te yaakaar naa ne ñoom ñooñu di ay ndaw kun ci waxal danga def te ñun suñu ndaw bokkun sax ci ñu mel noonu kon ñi nga xam ne bokkun ci mu mouvement Jamhiyatul Ihsan te yàlla def na nu leen di defloo loolu wala donte defloowuñ leen ko seen xalaat bopp lan am ñi ngi leen di wax ne leen kat loolu baaxul ci am réew ndax loolu ku ne xam na ne réew yi tàkk yëpp violence moo ko taal réew yi nga xam ni seen koom-koom dem na ba dee dem na ba kii xëy palaasam wërta mën a xëy la ko waral mooy violence te it fitna deesu ko yee ndax alxuraan nee na wa taqoo fitnatan laa tusiibanna lazina zalamu minkum sa dee leen moytandiku di yee fitna amaana fitna ji ngeen di yee du yem ci seen bopp ndax tey jii kat bu fekkee violence am na ci réew mi képp koo xam ne nii sa yoon nekku ci woon sax doo ci mucc faw da nga da nga da nga am ci jafe-jafe yooyu doo mën a xëy doo mën a def say activité bitig bi sax boo bëggee dem jënd lu jëm ci lu la concerné moo xam da nga koy lekk ci sa biir wala sa waa njaboot doo ko man ndaxte bitig yi ñëpp kenn ku nekk da ngay tëj ndax doo ko taal booba kon nag ñu ngi lancé appel président de la république mu woote jàmm te it ñuy sàkkuwaat ci moom it comme élection yi des na trois mois na jéem a woote dialogue national dialogue moom lu am solo la ci diggante bi bu ko defee dialogue boobu bu ko woowee bu mu bàyyi kilifa diine yi na woowaale kër gu nekk tarixa yi na fa yebal kenn nan fa yebal kenn mu ñëw représenter kër googu su ko defee it maanaam mu woot au parti opposition bi opposition yi ñëw képp koo xam ne nii ñëwoo ah maanaam nu xam ne yow jàmm ñoru la waaye nag euh, dialogue boobu na ko dëgg lal na ko dëgg rek lal muy jàmm ak salaam bu fekkee jàmm moo ko tax a jóg opposition bi wuyu si kër diine ñëw wuyu si témoin ah yaakaar naa dinañ amal élection yi ci jàmm te pono du tàkk ku gañe gañe ku yàlla jox ndam mu xam ne yow la yàlla jox ndam. ci say biir wax sànq da nga wax ni que da ngay lancer appel président pour que mu bàyyi ñi nga xam ne ñoom ñoo di opposants yi ñu war a dem élection ku gañe gañe kenn ku nekk xam fa nga féete dafay firndeel rek ne li ñenn ñi di wax moom ngay dëggal que ni président dafay teg loxo yenn opposants yi ngir ñu bañ a dem ci élection locale waaw loolu la loolu la gis ak di ko dégg waaye soo xoolaatee bu baax a baax day mel ne lu mel noonu euh, nga xam ne lu ëpp ci nit ñi ni ñu koy wax te it ma gis ñu baree bari ñoo xam ne nii kale nañ leen ba demuñu te loolu tey mën naa jur fitna ci dëkk bi ndax tey mel ne Barthélémy Dias mi nu wax ni maanaam dan nit ba élection nu woo ko tey jii mm, mm, keroog ñu jàpp leen biñ leen jàppee téye leen xaw tuut fitna judduwaat ci dëkk bi te yu mel noonu tey ñu koy xeeb ak di ko bàyyi moo mën a taal am réew kon nag euh, dañuy lancer appel rek ku war a dem na dem ku wërta dem xam ne waroo dem ku war a dem yàlla moom tudd nañuy gañe ba noppi. ku war a ndax ne élection yi dina am ci date biñ ko jàpp. waaye élection yi moom. jàpp naa ci njort ci ne dana am waaw ñii nag ñenn ñaa ngi waxtaan du am waaye man ci sama xalaat ak sama philosophie bi ma am mooy jàpp naa ne président de la république moom euh, jàpp na ko ci date bi mu ko jàpp ba pare te am na confiance ci ne fi mu tabbu ay nitam moom jàpp na ne dana ko gañe kon nag yaakaar naa ne moom amu ci intérêt jàpp ko ba pare di ko fombal yaakaar naa ne dana am jërëjëf ci leeral yooyu dañuy jeexale ak benn sujet actualité gis nañ ko yenn kilifa yaa ngi jóg di ci wax mu di euh, actualité bi nga xam ne actuellement. moom la réew àdduna yëpp di waxtaanee Miss Sénégal li nga xam ne euh, kilifa yi nee na nañ ko fi dakkal parce que dafa yàq xale yi ndax affaire Ndeye Fatima Dione Miss Sénégal 2020 ku ne gis na li ci am témoignage yi nga xam ne xale yi génnaat nañ def ko euh, kàddu yi nga xam ne Amina Badiane yëkkati na ko di wax ne fii ku ñu fi violé yow la neex mu doon kàddu yoo xam ne ñu bari ñaawlu nañu ko sa jàngat ci. waaw loolu moom du diine élection Miss moom du diine euh, ñun dañuy tënku ci diine. tey wax li yàlla wax euh, jigéen valeur bi ko yàlla jox euh, du caagi ne dafay dem di def di ay élection miès loolu mën na koo jox diggante su gàtt maanaam mu yàq avenir am ci ak dundam ndaxte jigéen moom liñ ko xamee mooy ba amee ab taar mooy na xam boppam su xamee boppam euh, nit ku baax fekk ko fa jël ko mu nekk soxna wante élection Miss moom nekkul loo xam ne euh, man de yaakaar naa su ma ci amoon njaboot wala am ci doom wala am ci koo xam ne nii sañ naa laa waxal nga ñëw tàgguma bala ngay yeggale sax dootoo ko del dootoo ko dolli parce que li ci am lépp euh, bul xam ëllëg lum la mën a euh, lu mu mën a def ci yow def ko ci sa njaboot ndaxte du dara lu dul mbirum mbirum mbirum bantisme rek dong laa ko jàppe man du dara parce que yow mi nga xam ne dañ laa jël ne la miis la moom lan lay def euh, nu nu def la ko boole la ak ay ñoo xam ne nii dalay lay wër ne lan lan lan yittewoo ci yow du leen lu yàqal la sa sa sa àdduna te it la nga doon dem di ko defi trois mois nga xam ne da ngay bàyyi sam njàng completement bàyyi cours ya nga doon def dem dem di defi miis soo concentré woon sam njàng rek sa njàng moom mën naa dem ba jural la résultat boo xam ne ëllëg maanaam dangay ngay defaree waaye doo def doo yàqu te it jigéen moom euh, wëlëram ak personnalité am mooy mu xam boppam. kon d'accord nga ak ñiy wax ne élection Miss dañ ko war a éliminer ci réewum Sénégal. waaw loolu moom képp kuy ab jullit wala képp koo xam ne nii am nga am njaboot te bëgg ci ñoom lu baax da nga leen ko maanaam li ngay li bu ñu doon voté yaakaar naa li ci ëpp. ci ñiy voté mooy loolu dañ ko war a dakkal parce que amul njariñ day yàq jikko di yàq jigéen di yàq ci loo xam ne nii xamoo ëllëg lu mu lay jariñ ñi ngay dégg ñëpp nu naan Miss 2020 ak Miss nangam miis ay seen àdduna yàqu na bu yàgg parce que li tax si àdduna yàggu yàqu na mooy loolu dañ ciy jëlee ak yàqu waaye doo ci jëlee ak defaru ca lii nag mbiru suñ borom la suñ borom ma ko wax te jigéen mu njëkk dugg ci diine jigéen moo njëkk a Euh, dugg ci lislaam jigéen maanaam wëlëram bu ko xamoon bu jigéen bu yàqoo lépp yàqu waaye jigéen bu defaroo lépp defaroo d'accord bu ñu bu ñu ñëwee ci ci ci jigéen ñi nu ñuy nu ñuy euh, def ba présenté wu nekk Miss moo xam peut-être ci parcours bi nga def ba doon tey ji euh, Miss wala nga bokk ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy ci podium bi dangay dem ba gis leen ci colko gi ñuy col des fois dangay da ngay yaakaar ne ñi ay deux pièces la ñu sol ay kilotes yu gàtt wala ay col yoo xam ne ni euh, méngoowul ak li nga xam ne moom moo di diine méngoowul ak aada ak cosaan bi nga xam ne moom la ñu gis ci réewum Sénégal ba tey foofu doon na point boo xam ne bëggoon naa nga ñëw ci waaw loolu mooy li ma la wax léegi nee naa la mbirum Miss comme ni ñuy defee concours yi ban jël leen loolu mooy wane ne tey jii maanaam dañ ko dafa wut ak eh, lu lu lislaam digle ak lu wala lu yonent bi saa salaam digle wala lu suñ borom digle ci alxuraan maanaam lépp dañ ko xaraamal te lépp lu xaraam la parce que yow mi nga xam ne jigéen nga yàlla teral la ngay jigéen jigéen mooy jur waliwu jigéen mooy jur xut bu samaan jigéen moo jur ñu baax ñëpp imaam yi jigéen a leen jur yow nga xawi sa sutura sa bopp maanaam di sol colin woo xamante ni dagg sa dagg sa euh, comme yooyu jupp yi ba mu ci sa ci ci loo xam ne nii ëpp naa wax sax ci gémmiñ mm-hmm. euh, ngir lan ngir bëgg a euh, maanaam bokk ci concours bi gañe te ñëpp boo xoolee ñu ëpp ca ñuy gañe ka gën a sol colin ku bon lay doon Euh, ñi nga xam ne noo yor comité boobu di tànn ki gën a sol colin gu bon wala kin gën a am ci moom yaakaar ne kii kat buñ ko jëlee mën na noo am ci liñ bëgg ci moom wala kin gën a xeemeem nga ñooñu la ñuy jël tànn leen ne leen ñii nooy miis yi nooy gañe bu dee ci kaw Ndeye Fatima Dione Miss Euh, nee na ci biir euh, élection ci biir euh, couronam maanaam bi mu gañee doon miss ci biir li nga xam ne moom moo di couronam ci la ñu ko sàkkoo ëmbal ko xamul kon mooy pàppaay xale bi gis nañ ki nga xam ne moom moo di présidente communauté comité bi di Amina Badiane wax kàddu yoo xam ne ñëpp ñaawlu nañ ko di wax ne fii kuñ fi violé yow la neex kàddu yooyu ndakk nga ko jàngatee ak li nga xam ne moom moo di li jot a am moom moomu ni Amina Badiane laa jàpp ne moom ci boppam moo jaay xale yi moom moo def loo xam ne maanaam ëllëg am na ci part de responsabilité bu jàkkaarloog suñu borom. da da ngaa jàpp ni que day jaay xale yi. moom moom waaw mm. moom Amina Badiane moom moo def loo xam ne moom ki ëmbal ndaw si xam na ko xam na ko ndax ku ne xam na ne moom ci boppam euh, lépp ci loxoom la tegu woon kon xam na bu baax ndaw si. kin ki mu wax ne moo ko ëmbal ndaw si bu ko xamul moom dana ko xam. Amina dana ko xam. ndax it maanaam moom amaana man nan kaa forcer def loo ko loo xamante ni du ko du ko tey ku ne gis na ko ci dëkk bi. Mm-hmm. Euh, jëlu gone goo xam ne nii nga ne mooy mille 2020 nga yóbbu ko ci hôtel man mën nañ koo dorage sax euh, yabal fa koo xam ne nii la mu bëgg am dana ko am ca la taxoon nu tànn ko ba mu nekk mille vingt mm-hmm. loolu li si jublu woon rek moom kon Amina Badiane moomu. moom ci boppam war nañ koo plainte ndax moom lu mën a xew moom macro gone yi moo leen def loolu loo xam ne lislaam da koo tere ba pare yëkkati kàddoom koo xam ne ku dégg wax ji xam ne moom ba mu leen koy defloo daf leen wax ne leen kat moytu leen ci am taraas kon taraas bi mooy bu leen ëmb comme bu wëlbatikuwaatee waxaat naan euh, ku mu fi voyé yaa ko tey kon moom ci boppam moom responsabilité bépp moom la waaw moom Amina Badiane ñu ngi lay jaajëfal sëñ bi comme li ñuy cërale woon ci ay waxtu jeex na lan nga ñuy tàggoo. waaw jërë ngeen jëf ñu ngi sant bu baax di leen nuyu di sant sunu Sunugal 24 bii nga xam ne euh, internet la boo xam ne ñëpp a koy suivre ci àdduna bi rawatina fii nekk ci Sénégal di am mbégte bu baax ci dalal gi ngeen dalal mouvement Jamiyatul Ihsan jaarale ko ci man mii may secrétaire général bi jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa

413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax